li nga xamante nii moom la Bambey di dund nii mën nañ ne jamono jii am na jigéen ñu bari yoo xamante nii dund nañ ko wala jamono ji ñu ngi koy dund mooy que ne ñoom ñii kat dañoo nekk seen biir kër wayjur yi ba noppi seen wayjur yi génne leen seen kër te alors que nag mën nañ leen nekkul seen faute donte seen faute la sax waaye mën nañ leen ndogalu suñu borom tamit mu ngi ci waaye ndogal suñu borom boobee tamit mën nañ ne càgganteeg ñi nga xamante ñoo di parents yi tamit ñu ngi ci ñoom am nañ kon responsabilité nga xamante ni moo di Bambey mii nag donte nag ku tëla koo xamante ni nag mën nañ ne ku lëjal waa kër gi yëpp la lim def nii lépp mën nañ ne li mu di ko mën a gaase mooy ki nga xamante ni pour xalil takk ko képp la yaakaar naa ne waaye bu loolu lépp amee nag ki nga xamante moo di tonton Ndiouga Thiam mën nañ am na ci responsabilité bu mag ndax na bu fekkee ne moom mii dafa bokk ci famille bi ba noppi mu ëlbatiko jënde ko fi nga xamante ni moo di kër gi bambi mii moo naa dem defi cagatu ji wala sax mu dem defi banditisme mu ngeen baal ma si terme bi mu koy waxee gis nañ ne nag jamono ji tonton Ndiouga mi ngi commencé di rëccu nga xamante ni moo di si ñu fa demee nee kii bambi mii nag lépp lu ko daal mën nañ ne man mi am naa si parce que xam na ko moom mi moo ko génne woon këram ak li nga xamante moom la defoon moo tax ñu naan boo meree del maanaam del moytu ndiku di wax ndax am na looy waxee rek mën nañ ne boo sa mer bi gifee mën ngaa rëccu lu nu mel kon mën nañ ne nag tonton Ndiouga Thiam mii commencé naa réccu génne ki nga xamante ni génnewoon nañ ko Bambi fi nga xamante ni moo di ci biir kër googee te génne googee mën naa ne mënoon naa ñàkk pour man mënoon naa ñàkk ndax problème boo gis bu ne rek mën nañ ko régler léegi nag question bi mooy ma koy laaj sama bopp di la ko laaj yow mi may seetaan nii bi jamono jii nag bu retrouvé waat li nga xamante moom mémoire am wéraat këriñ est-ce que tonton Ndiouga Thiam mi dina ko mën a jëlaat pour dugalaat ko biir këram wala dañ koy bàyyi muy ànd ak doom di dëkki feneen wax leen ma ko ci commentaire